salaamaaleykum mbokk internet yi ñuy teewlu ci suñu euh, site internet Vision Dakar TV tey nag ñu ngi am mbégte ak contenté di leen dalala suñu plateau tey nag ñu am plateau bi spécial ñëw fii si Touba Yëmbal naa ñaari Baye Fall di am mbégte di fi dalal suñu mbokku Baye Fall ñu di ko wax euh, dal jàmm asalaamaaleykum wa rahmatullah asalaamaaleykum dal jàmm ñoo ngi lay nuyu di am mbégte ak contenté di la dalal si suñu plateau Vision Dakar TV. xanaa ñu bàyyi la ak nga nuyu ak suñu mbokk internet yi. ñoo ngi lay siyaare si kontaan ci teewaay gi ngeen teew fii waaw ñun de ñoo ngi fii Touba ñaar Baye Fall di alal sëñ ma leen te lii da ñu tax a jóg. waaw ku ñu wane la tamit suñu liggéey tamit ñun dañuy jël rek waaw xam ne ci mbaaxu sëñ bi rek moom koy defee ñoo ngi leen di sant bu baax nag ci li ngeen ñu woo waaw li ñu woo moom ñoo ngi leen ci sant bu baax waaw lii daal lañ fi nekkee. liggéey bu sëriñ bu set sak sellal ak jubal tey leeral nangu liggéey jàmm yàlla daal moom lañ fi nekkee. yëngu mooy wàllum njañ rek waaw njañ yi daal la ñuy yëngu waaw njañ yi bu nu kiiyee si njañ ñoo ngi defar diw bopp yi ñoo koy waaw ñoo koy defaral suñu bopp ñu suñu loxo waaw bopp yi tamit ñoo koy defar njañ yi ñoo koy defaral gars yi façon boo bëgg boo ñëwee ñu moom defaral ko bu dee njañ ñu sew boo ñëwee ñu defaral ko bu dee njañ ñu dijj ay dàll boo ñëwee ñu defaral ko. noo ko bëggee boo ñëwee loo bëgg ñu defaral la ko waaw. mel ni njañ dafa xew fi mu tool nii muy soxna yi muy Baye Fall koo gis mu ngi takk njañ lan nga mën a waxaat ci njariñu njañ. waaw njañ njañ njañ de soxna si njañ xam nga njañ ak dafa ko uute mën ngaa mën ngaa war a sax na njañ mu am ñaari différence mu nañu bokkul ndax njañ yàgg naa xew te kenn la ko waaye toogaay gi sëñ Mountakha amee lu mu wax si wàllu mees na Touba ba fi kenn du dugal mees la ñenn ñi xamul woon njañ sax xamal nañ si njañ ñenn ñi xamul woon njañ xamal nañ si njañ ndax toll na ne temps yoo xam ne ku yoroonu njañ si biir kër duñ la classé tax nit dañ lay classé ak bande wala ñu génn la si kër gi. waaye dem na léegi ku yore ak njañ di nga fexe wëlëranteeg Baye Fall bu bu am njañ wala nga na xarit ak moom te loolu mbaaxu maam Cheikh Ibrahima Fall donc la ñun nag si mbaaxam moom. si lañuy ñuy teddee ñun ndax si man manu Cheikh Ibrahima Fall lan ma lii nu man ba si dimbali suñu waajur muy njeeñ yi ñuy dund yàgg nañ ko liggéey te njeeñ xewul woon kon bu demee ba sëriñ bi te mees ba ñenn ñi tamit njeeñ yi dem ba tax la ñu ñor dañuy sant sëñ Mountakha Mbacké dañ koy ñaanal mu yàgg fi di ko sant bu baax ndax yàgg nañoo liggéey njeeñ te demagul nii léegi dem na ba nit ñi dañu dañ dañ ñi dañu toog xaar ndax dañ fiy jàppal ñu ne chrétien beeg njaago beeg espagnol beeg ku ne la ñuy jàppal te loolu mbaaxu maam Cheikh Ibrahima Fall dong la ci mbaaxam dong moom lan manee nii waaw jéggaane woon ko fenn nag ba bag Cheikh Mounou Sa Fall waaw. waaw dal jàmm indi nga ñaari différence maanaam ñaari ute indi nga njañ indi rasta ce que mën nga ñu ngir ñi ñuy teew. waa njañ njañ res moom dafa ma ndax lu tax mu ute njañ ay njañ yàgg na fee xew te ñenn ñu xamuñu rasa te rasa moom yàgg na xew euh, jëfi jamaïcain bi la te jamaïcain moom jëfi zaahir la te njañ moom baatin la baatin gu ànd ak dara amut ak daray zaahir ndax Seex Ibra ba ñuy wax njañ Seex Ibra tax ñenn ñu xamuñu rasa waaye njañ moo dem ba ëmbi rasta ñenn ñi sax dañuy jaawale njañ ak rasta ndax mën ngaa yore rasta ñu jaawale ko ay njañ mën ngaa yore yu gudd yu sew ñu ne akii ah, de ay njañ fekk ni ay rasta la yore ay njañ nag ku seetloo koy yore te jubal lool tey sellal rasta nag moom jamaïcain yoo koy yore waaye njañ moom suñ comme suñu classe nga xam ne dañuy liggéey sëñ bi téeñ leen koy yore dañ koy dañ ci liggéey sëñ bu sëñ bu wootee ndog yi ñu def ko téeñ rasta nag ah, am na ñoo xam ne buñ koy yoree pour wàllu taar taar rek tax ñu koy def te ñun taar taxu ñu koy def taar taxu ñu koy liggéey ñun ñun bu ñuy jàppal fii sax ay nit laajee Moussa mi dañuy jàpp ba sell fas yéene liggéeyal Cheikh Ibrahima Fall jàppal nit ñi jàpp rafet waaye Ndiaye nag nag dafa ute mooy li ma ma ma dellu la ay rasta zaayir maan yee ko yore ay Ndiagne yore. Baye Fall yi dëgg lii te sellal nag laa waxuma nag comme comme waaw ne Baye Fall laa rek nii déedéet te dëggal ta sellal xam ne dara ittalu si waaw comme bu bu naree yàqu da ñëw Baye Fall bi defaraat taloog ba mu jekk ba boo toogee sëriñ bi sëriñ bi bëgg lool ñun ñun loola tax ñu yore njañ fii du ko di si liggéeyal sëriñ bi ñun fii Touba ñaar Baye Fall fii. mu mel ni buñ ko tënk na di yéen a ngi teewlu waxtaan bi am na solo mu mel ni buñ ko tënk buñ ko tënkee dal jàmm njañ ak rasta njañ baatin bi la rasta tendance bi la ak mode bi comme niñ koy waxee waaw ba tey ñu wéyal suñu waxtaan fii ci bërëb bi à part njañ yeeg diw bopp yeeg yooyu ci yan ngay gën di waaw non man moom man moom si yemay laa yëngu ndax si njañ yi si njañ yi may liggéey euh, moom laa yàggu yëngu si laay dundalee samay waajur si laay yor samay soxna si laay si laay jàppalee tamit maam daal samay mbokk taalibe xam bu mu catee sax ñoom man leen kàllit ñu bokk waaw waaw lu weesu lool si njañ daal laa yëngu. mu mel ni da ciy boole ay laxasaay ñawi laxasaay ak yeneen ak yeneen ci ay. waa yii waa yii ni ñoo koy ñoo koy wecc gars yi wàllu wàllu laxasaay. moom yaa waaw tubay caaye yeeg laxasaay yi yëpp ñoo koy wecc. waaw képp koo bëgg boo ñëwee fii Touba Niayar Baye moom ñu fexe ni nga am si. waaw ñun loolu la ñuy jëngu laxasaa yi tamit ko ko bëgg boo ñëwee ñu fexe nii nga jot si waaw tubay mu di jeeg yeneen façon tubay yu xeweeg yëpp ñu ñoo nga wecc fii waaw waaw mel ni fësal ngeen beneen modd ci wàllug Baye Fall ndax indi ngeen liggéey ñaq jariñu jaayante mm-hmm. est-ce que loolu côté économie amul beneen taxawaay bu bu ngeen wane jëmale ci wàllug Baye Fall ah, da moom kay danga naan ah yi ñu ñoo ngi bëgg a xam Cheikh Ibrahima waaye na xamaguñ Cheikh Ibrahima <laughs> ndax Cheikh Ibra yàgg naa wane lii liggéey ñàkk jaruñu liggéey jox Serigne Touba dugal si ndongo yi moom nangu leen liggéey te jaamu yàlla te jox seen Serigne jox seen waajur loolu Cheikh Ibra yàgg na ko wane waaye ñenn ñee siiburul ban demee nag boo xam ni dëgg la lii dëgg ñenn ñi xam nañ ni Baye Fall doo fii luñ fi wane lu ne rek Cheikh Ibra yàgg na ko wane xanaa ñenn ñee bañ ñenn si bañ a teg seen bët waaye Cheikh Ibra yàgg naa wane lii yëpp ndax bu ñu lay xam ne Cheikh Ibra kat moo njëkk a jëndal Sëñ Tuubaa fii kër titre foncier kon kooku yàgg na noo wan moom Cheikh Ibra kon léegi buñ koy roy te ñuy ndongo doon ay dongo daara doon ay tuut tànk yoo xam ne Cheikh Ibra mooy suñu udal moom la ñuy roy moom dong moom la ñuy roy ñun ku dul Cheikh Ibra mun ngaa wax ba say wax bu nu wax ju soofee sax moom ñu jóg wàcc la fa ndax Cheikh Ibra moom gën a mën a wax ñu mën laa dégg Cheikh Ibra nag lii la ñu tàggat ñun nag yaakaaroon kenn ku dul maam Cheikh Cheikh Ibra moo ñu moo ñu dimbalee lii waaw ku du Cheikh Ibra nag war ma lan lay lan lay jox rek saa la ba bu nappee dam waaw waaye du la ñaat kaas duñ la wax duñ la duñ la jañax def def def dara waaye lu dul Cheikh lii la ñu liggéey loo nangu leen liggéey jaamu yàlla bu leen tox bu leen naan bu leen mand bu leen mooy yàlla bu leen def leen loo xam ne sëñ bi digloo ko te loolu nag ñun sant nañ ko mooy ki ne yaakaar mu suñu leen defal teel ñu cee tàggat si lii muy liggéey liggéey joxe muy liggéey gëm sa bopp muy liggéey respecté say waajur waaw. mu mel ni ci loolu sax leeral nga leneen parce que ñu bëri am na lu ñu jàppee Baye Fall jàpp ñu ne sax Baye Fall war na liggéey war na jaayante lu ñu jàpp mooy Baye Fall mooy kuy ngir yenn melokaan yi ñenn ñi mel ci Baye Fall lan ngay mën a indi foofu ngir setal Baye Fall. Ah, waaw waaw xam nga setal setal moom setal moom booy setal fexeel njëkkee sa bopp. booy sangu boo bu dee dama da damay bëgg damay sangu bëgg a sangaale kee si kaw télé bi te kooku bëgg a set day métti booy sang sa bopp ba noppi set ba noppi su boo taxee fee ku toll fee na xam ne kee kat sandwich kon ku ñu bu ne bu ñu roy kon kee taxaw ne te set kuy roy war xool si moom si set ak yiw kon lu loolay Baay Faal ndax am na ñoo xam ne ah fi ñu teg seen bët rek seen yem seen bët fu mu yem rek fa yem man bu ma nee man man ne keekat daa bon rek daa bon te xamaluma ko dara ndax lu rafet nee ko xool ñaaw lu ne dafay ñaaw di nga gis ku tax lool bon lool nga gis mu mu mu méngoo koo xam ne suñu borom a ko baaxal mu ànd ak moom baax nga gis ko xam ne dañ ko tarbi ba mu ba mu baax si boppam mu gis ko ànd ak koo xam ne amul yar amul tegge ñoom ñaar bu nu bu méngoo lool seen baax mun na ànd. sagam zaahir maa rek ñii politique donc donc donc ñooy ànd ak ñoo xam ne politique ñu politique politique defuñu dara si ay politique dara ñooy ànd ak ñoom dem ba politiciens yi léegi dañuy dem ba ne wàll leen seen i jikko wax ma ñun ñii baay fa ñun sëriñ bi lañ roy ba ku sax dañ xam ne ñun ay ndongo yi bi lañ ndax say suñ Cheikh Sow daana wax ne ñëw na fi ne fexe leen ba bokk fi ñëw kat xam ne yéen ay Baye Fall ngeen ndax Baye faal fu mu ne mbedd mu ne rek foofu war naa leen naa ñu set wicc mu yar gi ak i teggin gi jub geeg sell gi nangoo liggéey jàmm yàlla kenn du ko kenn du xool si moom lenn du ñuy xeebee Baay Faal. waaye dal jàmm ci foofu sax laa bëgg nga xuus parce que li nga wane ci modèle Baay Faal mooy Baay Faal fu mu nekk dafa war di wane waaye kenn waru koo wan. fu mu nekk dafa war ne nii la waaye kenn waru ko wax nii la waaye mu mel ni tey bëri na ñi nga xamante ne dañuy mbubboo Baay Faal di wuyoo Baay Faal ak Yaay Faal te nekkin bi des na jëf bi des na melokaan bi des na. waaw xam nga xam nga <laughs> soxna si yaa nag ndax xam nga xam nga maam Cheikh Rafal moo njaboot ndax fu mu toll nii bu ñu lee seen fee seen tali be ngeen ne am na ñu fa njëkk te doon ay ay ay ay personnalité yoo xam ne xarañ nañ ci li ñuy liggéey yow am ñoo xam ne ñu bees leen waaye ñii di jàng bu ñu yàggee tuuti dinañ mel nii ñu fi njëkk noonu la mel noonu ñi fi yàgg lool ci tali bi. ñi fi mujjee ñëw buñ buñ suivre si ñii léegi ñoo man li fi man foos ndax ñun bañ ñëwee kër sëñ bi tamit am nañ fekk ñeen fi suñuy jëwriñ fekk suñuy baay fekk fi suñuy magum taalibe dañoo dem ba suivre ni ni ñu toppee sëriñ bi ñu ànd koog ñoom noonu dong la mel ku fi bëgg a baax di nga baax ah waaw waaw loolu loolu lem koy jàngate mooy loolu daa yàgg si yoon bi tuuma moom moom yàgg na si yoon yoonu Cheikh Ibrahima yoonu lislaam sax laa lay wax ndax fa la njëkkee sayam yonent bi sallallahu alayhi wa sallam a njëkk a samp ñeen ñi teg ne ne du ne te mooy ngeen di mi def waxuma na nag ñun Cheikh Ibrahima Fall mi nu yaakaar xam ne ku yor sa mbali sax da nga naan ko ah moom da doon moom da bon fekk ni ndeysaan bis na ñëw di nga fa am doomu Baay Faal boo xam ne force moo lay dimbali te doo sa xam waaw laata nga xam yow miy waajam di nga dem ba yore yat nga xam ne ah man kat sama doom ji moo fi gën ti Cheikh Ibrahima ko soppi dimbali ko ñun ñi ñëpp am na neen nun meloon suñuy baay tàggat ñu dimbali ñu yóbbu ñu si daara ji meloon ñu ban ñu ñëw ba nu dul nii safunu ba nu mayoon jees na tamit ñu sol suñu lii takk suñu der gi moo nuy gënal kon am na loo xam ne mbaaxu bi la sëñ bi lay dimbali rek nga mel ni nga war a mel. dëgg la dal jaamu suñu mbokku internet yi ñu ngi xuus ba tey ci waxtaan bi ànd ak suñu mbokkum Baye dal jaamu fii ci Touba Baye Fall ASECNA dal jaamu xuusaat ci côté liggéey bi. waaw mel waaw waaw yaatal gay weesuwul maam yow ba nga fekk ma fi man dong da nga fekk ah, muy sama tuttaangi nekk muy Moussa Mey muy sama rak nga fekk gisoo ñu noonu mel ma ne moom xam nga yaa ngi ñëw fekk ñu nduróole waaye boo ñëwee fekk ñu nduróole wun dara wala nga fekk ma fi kon danga naan kii yaatalu mbir mi ñu tàggat si tamit suñuy soxna tàggat leen si kon kon bëgg nañ buñ sañoon tamit bëggaat nañ tamit yeneen bërëb yoo xam ne comme ni ngeen ñu jëlee noonu ngeen ñu jëlee waat waaw bëgg nañ mu yaatu lool waaw dëgg-dëgg mbokk internet yi mu mel ni teewlu ngeen waxtaan bi teewlu ngeen waxtaan bi dal jàmm yaatal na ci lu baree bari ci nekkinu bay Fall léegi da ngeen di teg foofu seen baaraam ñu dem jëli quelques témoignages ci gars yi ci Baye Fall yi fii ci daara ji après ñu dellu tey ñu fekk la fii ci bërëbu dal jàmm Touba naa ñaari baay Fall lan nga mën a indi ay kàddu ci ginnaaw bi nga teewloo wax. ah dal jàmm de daanaka ñun client lan fi xarit lan fi ndax ñoo bokk jëmm ji di sëñ Mourou Aminta ndax ñun mooy sunu maam si Fall lan sant li muy def doon lu baax lool loo xamante ni moom mën nañ la ko sax dencaale biir bàmmeel ndax euh, du bàkkaar man dama si amoon yi ma si def ma dindi woon ko léegi dama ko bëgg a defaat. ndax sama karaw la mu doon ku baax ku laabir nag tur bi rek wuyu na ko dal dal jàmm kon ko tuddee war ngaa xam ne am na dal baax na moo tax ñu ñëw pour bëgg a takkaat sunuy bos ndax ñun ay Baay Faal la ñu cee juddu yaru ci sant Faal. waaw moom dama ko dindi woon waaye nag xam nga nit dafa am loo moom am luñ la moomal ndax bu ma ko dindee nag ñu bari naan ma ah waroo ko woon a dindi Faal affaire bi jàppoon na la ba pare euh, sama mbóot la xam nga nit da am sa mbóot sa feeling daal. man ras moom daa bëri. léegi nag man rasta dafa nekk sama feeling des fois damay gis sax ñoo xamante ni dañu duñ ma xàmmee dañ naan ma mais yow Fall xàmmeewul la ndax kii bi njaañ xam nga tey moo tax. fee damay yëg Baye Fall bi ak tàngaay lu ma song damay mel ni gaynde boobu waaw baatin bi waaw. damay waaw ba pare day tax nga nga am benn pënsu quoi si wàll bi ngay liggéeyee. loolu moo tax ni Baye Fall saayir ak baatin lépp da koy wuyoo saayir bi day am punch mais baatin bi tam day dund. waaw Fall loolu la loolu la gisoo soo gisee da nga gis si milieu showbiz bi sax nga gis si ñoo xam te ni maanaam ku mel ni ay ñoom euh, Carlo ji ay ñu mel ni Carlo ji gis nga ko Baye Fall la mais gis nga mbootu rasta bi ak ni muy dégager ak ay laxasaayam waaw dafa am lu nekk si moom te mu doon dëgg-dëgg Baye Fall. waaw non bërëb bi nag macha allah bërëb bi moom macha allah baay Fall yaa ngi nii nekk ci jàmm duñu tux duñu naan nekk ci seen liggéey dal du fréquenté koo xamante ni day tux wala muy naan. waaw jaayante rek liggéey ñaq jariñ waaw waaw El Hadj Fall la moom laa tudd ñu leen jaajëfal nag yéen seen li ngeen nekk nii yàlla na gën a jëm ca kanam. ci barke Cheikh Ibra ndax yéen daal comme yéen ngi jeex waa kër Cheikh Ibra yi man yéen laa faral maa ngi si yéen. kalaamu ñu fekk la fii tey nga nekk ci bërëb bi ci daara ji fi ñu fekk la en pleine action ngay takk ay rasta lan nga ñu mën a sànni gannaaw ba nga teewloo kàddu dal jàmm lan nga mën a yokk ci takk njañ beeg yooyu. waaw takk njañ bi de moom dafa yàgg doon suñu bëgg-bëgg ban doonee tout tànk ba léegi buñ masaana gis. sunu maam yi wala sunuy mag wala suñuy nijaay ak yooyu ñu koy takk dañ daan toog naan ay lii buñ demee ba xam ko wala buñ demee ba mën ko kon liggéeyu suñ Bàmba jeeg liggéeyu Cheikh bi dina gën a yokk ndax lii ci si maanaam daal njañ buñ demee ba koy wax maam Cheikh waaw njañ bu ñu demee ba koy wax maam Cheikh Ibra tax moo daan bàyyi karaw gi ba mu njañul boppam ba mu daanu fii mu mësul wàcc sax danaan yam fii ci doq li waaw. naka nga gisee li nit ñi jël léegi rasta njañ koo gis mi ngi takk njañ góor ak jigéen ñëpp jël ko mu mel ni ci xabru maam lañu ne muy gën di fës nit ñi di gën di bëgg moddug Baye Fall. Mm-hmm. ah Baye Fall kat daa doon exemple. ndax bu dee ci àdduna boo nee ab Baay Faal laa yow ku la gis dafa war a jël ci ab ci yow exemple muy ci ni ngay doxeek ni ngay solook ni ngay waxeek ni ngay defeek ñëpp ndax maam Cheikh Ibra ñëpp a bëggoon waaw. liggéey bi naka lay demee naka ngay jàppale daal ci liggéey bi. waaw li ñu koy jàppale daal mooy bu ñu xëyee rek ñëw bu client yi bëree ñu jàpp même bu dee benn nit sax moo fi nekk bu dee man maa ngi fi dama naan ko fal in ma ko waaw mun mu toog noppalu daal saa yu ñu xëyee nag fii la ñuy xëy si bu nu wàccee lu nu am ñu bokk ko bokk ndey bokk baay waaw. waaw mais weekend bi nag lay gën a bari. waaw parce que semaine bi. gars yi dañuy bëgg mais dañuy xëy di liggéey am na ñoo xamante ne liggéey jàmbur lañ yore duñ mën a bàyyi liggéey jàmbur boobu di ñëw ci seen bëgg-bëgg. waaw weekend bi daal lañuy bëgg nga xam ne ci ci la gaa yi di noppalu daal waaw. Mm. waaw maa ngi leen sant di leen gërëm. fekk la fii ci bërëbu dal jàmm nga toog di takk say njañ lan moo la motiver ak euh, lan nga yëg ba ñëw fii di takk njañ. ah dama xam ne kat euh, ñun waa kër Cheikh Ibrahima ñun lii rek moo war a nekk suñuy mees. waaw loolu de moom si xëcc. Mhm. ma gisee ko takk njeeñ damay damay kontaan dama xam ne eh, sa karawu bopp dara dàq ko nga jël ay yoo xam ne nasaraan yee ko moom nga koy def mais tamit dañ koy def tamit ne ñëw si si jëwriñ jëwriñ macha allah xol bi rafet na yaatu na te da ngay defar ba pare pa des fois sax mooy loolu. waaw. en tant que yaay booy nga gis soxna yi ku nekk yaa ngi takk sa cheveux ñii di leetu seen mèche yow nga préféré takk nga. ah ku nekk sa yëg-yëg ñun waa ko Cheikh Ibra neen waaw ñun waa ko Cheikh Ibra moom Cheikh Ibra teete moom waaw ñu ngi ñu ngi sant bu baax sax jaajëf. borom baax waaw yow ñun waaye xewle dañu ñëw def si nit ñun Baye Fra dañu ñëw waaw moom lay. waaw parce que moom moo ko wane moom moo ko wane daal borom baax la par exemple ci dégg ban koo fi ñëwee lay defal ci ay côté bu bëri boo gars yi ñu jàpp séddale léegi yëpp moo tax ñoo loolu soo xewlee moom njëkk a teew moom borom baax la non parce que moom man dañ laa defoon moom moom daa am moom taxee loolu commencé taxee moom ba léegi wax dëgg yàlla su ma gis mu ngay dama am confiance ak loolu daal ñoom parce que boo mënta ñëwee nii soo yoree 1000 francs day bokk ak alxuraan wallaay wallaay bu qualité bi moom benn set na ba pare mooy loolu da lay accueillir di waxtaan ak yow ba ci kenn gi rek daw nice waaw moom moom dëggoon nañ moom macha allah waaw moo tax ma koy yabal ay kii daal nekkoon mel bu munul da nga ko fa yabal te ñu ñoo wax dara dañuy saar sunu sëriñ suñu yaakaar muy sëriñ mu Mbacké di nga ñaanal mu yàgg fi lool te wér li mu bëgg a liggéeyal maam Seexul Xadiim mu defe ko ni mu ko soobee naka noonu tamit noonu la ngay ñaanalee sëriñ moo Modou Mbenda mu yàgg fi lool te ànd ak wér ba li mu bëgg a liggéeyal maam Cheikh Ibrahima Fall mu defe ko ni mu ko soobee di leen siyaar nag yéen waa internet yi di ñaan seen jàmm yàgg seen liggéey li ngeen bëgg yàlla defal leen ko ci bàkk Cheikh Ibrahima Fall waaw di wax ne Baye Dalla moom lépp lu mooy suñu jër moom lépp lu mu wax Cheikh Ibra ak doxalinu Baye Fall di wax ne loolu moom bu leen neexee maanaam ngeen teg seen loxo ndax loolu lu wér lay doon waaw mu mel ne ab Baye moom maanaam set sell jubal te bëgg sëriñ bi nag bu da ko yemale kenn itam maanaam li wax sànq la ci ay teggin Baye Fall moom maanaam daa war a waa naka la kenn waru ko waa naka fu mu gis foo ko gisee rek daa war a wane aw yoon mais moom wees na fu ngay wane yoon moom ndax moom Baye Fall moo tega ci yoon ba noppi mën na sax moo egg ba pare waa waaw di wax njanj moom mbirum maam Cheikh Ibrahima rek te Cheikh Ibrahima sax ba mu koy def moom maanaam dëgg la bokkul ak ni gars yi ñenn ñi nga jëlee léegi ndax bëri na li ci seetlu léegi ma daanaka maanaam modd la ko nit def rek daa xew wala dara mais sunu maam Cheikh moom li taxaw mu yoroon ay njañ moom képp kuy dund Cheikh Ibrahima maanaam loolu xam nga ko mu mel ni yi baatin la waaye rasta yi mooy modd bi loolu lan nga ci mën a waaw ndax maanaam li ma bëggoon leer loola rek ndax maam suñu maam Cheikh Ibra daa taxoon maam dafa amul woon jot moom ndax Seexul Xadim liggéeyal ko rek moo ko gënaloon lépp lu mën a am benn jot te it maam kanam googu sëq noonu ba tax ñu ngay woowee ay njañ maanaam da liggéey Seexul Xadim mu mel ne ay xeetu mel ne ay yanu wala dara moo tax amatul woon temps pour waxtu te it dimbali waale te ñoom nag lu ñu def maanaam du tuxu maanaam maam ñoom dañoo liggéey yàlla ba nga xamante ni ñoom dañoo am barke boo xam ne lu ñu tax teg loxo rek loolu day barkeel loolu waral maam képp ku ñëwaat di topp seen biir du mën a ñàkk ngay roy loolu ci ñenn ñi loolu tax ñun ñi maam ci lañ jëlee maanaam di roy ay njañ ci moom moom maam Cheikh Ibra tey nag njañ yooyu tey noonu Cheikh Ibra Fall daan taxee ngir liggéeyal sëriñ bi di tax ay yenn ay ndab kon ni ko bàyyi dal waxee léegi ñun ñi loolu dañuy dimbali ci loolu bu demee ci ndigal li bu ne yenoon ndab yi tàng yi loolu njañ yi moo ñuy dimbali ndax moo foo toll yor ay téeñ loolu rek lañ xamoon waaw pour leeral ko internet mu mel ni waxtaan bi amoon na solo yaatu woon na xuus nañ lu bare bari ci wàllu Baye Fall waaye teewlu ngeen témoignage yi nga xamante ne fii waa Daara jékkati nañ ko jëmale ko ci Baye Fall bi muy dal jàmm ci mbaax gi yaatu gi ak modèle bi jëm ci wàllu Baye Fall ak liggéey bi ñàkk jariñu jaayante mu mel ni am na solo wane nañ beneen facette jëm ci wàllu Baye Fall wane nañ beneen nekkin model ci wàllu Baye Fall mu mel ni Baye Fall mooy kiy jàngale mooy kiy wane mooy ku sell ki mooy ku baatine ki dal jàmm am nañ kontante ñu bàyyi la rek nga tàggatoo. waaw ñoo ngi ñoo ngi leen di siyaar bu baax waaw di ñaanal sëñ Mountakha Mbacké yàlla na fi yàgg toor ak sunu xalifa sëñ sëñ sëñ sëñ Moussa moom moo ñu wér Fall. yaa ngi xalifa yi xam ne mooy maam Serigne Fall mu yàgg loolu mu tënir ñaanal sëñ Fallou Fall sunu sëriñ ak sëñ Moussa Fall mara yàlla fi yàgg ak njabootu waa kër sëñ Mawalane Tafa Fall ñëpp ñaari Baye Fall kullu ñëpp ñoo lay ñaan sant liggéey bi rek ñoom Moussa ñooñu soxna yeeg ñëpp ñoo ngi leen di siyaare sant nañ ne bu baax ndax taxaw ngeen ñu taxaw ak tamit bëgg ñoo wane rek li ñuy liggéey kon ñoo ngi leen di sant yéen yéen waa yéen waa télé bi sant na leen bu baax di sant nag waa koñ beeg secteur bi waa asek na fii xam ne waa mooy Touba ñaari Baye Fall sant nañ suñu waa secteur bi ñu ñu bokkal ñëpp waaw ñoo ngi leen ñaanal bu baax barke Cheikh Ibrahima Fall kaw ba suuf ñoo ngi ñaanal ñëpp doole Cheikh Cheikh doole sëñ leen defal waaw sant nañ bu baax nag waaw jërëjëf internet yi ñu doon teewlu ci euh, suñu chaîne YouTube Vision Dakar TV amoon nañ mbégte ak contenté bu mag teewoon fii digtal leen suñu plateau tey nag suñu plateau xawoon spécial wala sax spécial à la Dawmé ndax tey ñëwoon nañ fii si Touba Asecnaf ci kër Baye Fall yi ñëw fii ci daara ji fekk fi dal jàmm ak mbokku bay Fall yi fekk ko ci takk njañ yi fekk ko ci laxasaay yi ci diw bopp yi ci lépp li nga xamante ne mi ngi koy yëngu ci liggéey ak jaayante mu mel ni wane na lu baree bari tey ci wàlluk Baye Fall wane na nekkinuk Baye Fall wane na liy dëgg-dëgg Baye yaatu na ñu leen di rekk jox dig daje ci beneen plateau ak suñu beneen émission ak beneen gan ci Vision Dakar TV jaa jëf.